kuréel bi soxna bu Ndiaye moom moo ko jiitee muy association aidons les enfants handicap association bi nag nekk association boo xamante ni association nationale la ndax yàlla dafa dogal handicapé yi nga xamante ni ay tout tànk lañu dañ leen di dimbale e, ci gox-goxaat yi nekk senegal yëpp képp koo xamante ni am nga doom boo xamante ni way laago la yàlla dogal mu nekk fii ci Sénégal boo contacté ak soxna bu njaay suñ borom mën naa def tawféex ca lan la war a dimbalee ñu jàppale la ko dina dimbalante nag ci wàllu aide alimentaire dina dimbalante ci wàllu euh, accessibilité lu mel ne que fauteuil roulant wala béquille wala appareil waaye tey dafa am beneen xeetu ndimbal boo xamante ni moom la aidons les enfants handicap jàpp def ci moment yi ñu toll mu nekk moment am nag waaw muy comme yàlla dafa dogal ouverture des classes yi commencé na te ñu gis ni handicap du dara suñu borom moo ko dogal ci nit ki ndax suñu borom bi mu defee nit ki mu nekk handicap taxul mu jàpp xelam ñuy xale yi kon ñoom ñooy doon ni mag yi ëllëg te boo bëggee sa réew dox boo bëggee sa réew baax da ngay éduquer xale yi handicapé yi nag nekk ay gone mais ñu bëgg leen dugal ci école yi ngir ñu jàng et donc les enfants handicap taxaw nag tembe ci képp koo xamante ni yor nga doomu laago bu fekkee contacté nga soxna Seynabou Ndiaye euh, ñoom dinañ leen jàppale ci wàllum jàng euh, bu ko defee seeni i partenaire seen yëpp dinañ jàpp ci liggéey bi ba bépp xale boo xamante ni yaa ngi dund laago nga bëgg jàng et donc les enfants mën na la jàppale ba nga dugg école mën a jàng ci anam yi nga ko bëggee loolu nag li ñu si jublu mooy sunu borom moo dogal li muy dogal ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tudde laago waaye gis nañ fi ay handicapé yoo xamante ni ñoo ngi ci bureau yi di liggéey gis nañ fi ay handicapés yoo xamante ni ñoo ngi ci marché yi di daan seen doole donte jànguñu école. kon dafa mel na mbir mi sunu borom fu ko neex la koy def looloo tax ñu ne nag léegi bëggatuñu gis benn handicap boo xamante ni xale la mu nekk ci mbedd mi di tàllal loxo wala waajuram tëj ko ci biir kër gi bàyyi ko foofu rek am complexe wala mu jàpp ni doomam handicap bi luur na ba mu am yërmande ci moom bàyyi ko ci biir kër gi mu yaakaar ni doomam saal ba néeg ba lekk naan tëdd. loolu du du yëfi nit ku nitee su ko defee nag dañu war a xam ni xale yi handicapé yi dañu bokk ci biir société bi ndax ñoom dañuy màgg te boo jàngulul sa doom école su màggee dana la xool yow mi waajuram dana la xool bëtu sama yaay de wala sama baay de waroon na ma teel a jàngal ndax am naa compétence bi ndax même boo jàngul école boo màggee jàngoo alxuraan boo màggee di nga am yëg ni am na benn compétence bi suñu borom def ci yow ni boo jàngoon suñ borom mën na la def tawféex nga am ci xéewal bu kawe sa njort looloo tax nag aidons les enfants des des personnes handicapées daal di jóg ngir jàppale xale yi nga xamante ni dañuy dugg dañuy dund laago pour ñu ñëw dugg ci école yi ñoom tamit ñu taxaw tembe ci doon ay partenaires handicapés yooyu pour jàppale leen ci seen i jàng ba seen jàng mën a mucc ayib. bëri na parent yoo xamante ni dañu jàpp ni sa doom bu nekkee handicapé rek warul mën a am xel euh, ba mën a jàng ba nekk directeur wala mu nekk sëriñu daara. wala mu nekk imam wala mu nekk leneen euh, su ko defee nag yow handicapé boobu ngay xeeb di bis dana mës a ñëw nga gis sa beneen moroom boo xamante ni am na doomu handicapé dugaloon ko école wala mu dugaloon ko daara fekk moment boobu yow yaa ngi bàyyi woon sa doom ci biir néeg bi mu toog di lekk ka naan nga gis ko mu nekk directeur nga naan ah man de ndekete am na ay handicap yoo xamante ni ñoo ngi jëriñ seen i waajur ñoo ngi jëriñ seen réew bu ko defee yow tardement boobu nag lan lay bañal moo tax ñuy lancé appel képp koo xamante ni am nga doomu laago nga génne ko yóbbu ci école yi ñu jàng su ko defee ñu si war a jàpp jàpp si gunge ko ba nga xamante ni njàngam dana si mën a am réussite totale. waaw message bi ñuy jàllale mooy ñi ci yor doomu handicap lañ bëgg ñu génne xale yi ñu jàppale ñu jàng ndax da ngay gis lu bëree bëri denc seen doom ci biir kër yi duñ leen génne pour ñu jàng ñun waa Aidons les enfants handicap nag loolu lañ bëgg a xeex ba xale bi nga xamante ne mën na jàng. ñu dugal ko école mu jàng seetlu nañ ko ndaxte ñii dañuy am duñ am moyen bu ñu leen yóbboo école ñii dañuy am kersa génne doom bi génne leen ci biti eh, lu bëree bëri dañ koy seetlu ci ñoom xale yooyu lañ luñ gën a soxla tey xale bi nga xamante ne mën na jàng ñun yan taxawaay lañ ciy taxaw bu fekkee dafa war a inscrit ñun waaye Aidons les enfants dinañ jàppale xale bi mu inscrit jàppale ko ci kaye maam lépp li nga xamante ne da koy soxla eh, pour mu jàng dinañ ko def waaye ñu ngi woo rek di woo yaay yi nga xamante ne ñoo yor xale yi ñu génn leen waaye di woote it ñu jàppale xale yi parce que xaj na aidons les enfants handicap mu ngi liggéey waaye mënta matale lépp ndaxte naam doole ji yéene bëri na waaye doole gi eggu fa dañ ciy woo nag ñoo xamante ne eh, yàlla may na leen dara ñu jàppale xale yooyu waaw ñu ngi ci ñeent fukki xale ak juróom-ñaar waaw ñu ngi ci Touba waa waa da ngay woote ci 77 471 08 08 Mhm. numéro boobu kese la moom waa numéro boobu kese la. Mhm. Touba Darou Minam. Mhm. waaw waaye dañuy xamale tam liggéey bi emu Touba kese. emu Touba kese dañuy woote fépp xale ne tey jël sama numéro téléphone sa doom mën a jàng wooteel ñu xool luñ la dimbalee.